Anyways.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 suma la ñuy nekk yor seeni arme war seeni scooter ngannaayoo ay xeetu ngannaay yoo xam ne maara deetaali jaasi paaka pompe à gaz ma ne ba ci ay gourdin laa la wax lu ñu romb raatale te nag boo dajeeg ñoom di résister du ñu hésiter lu ñu yor ñu fëgg la ko te lu ne mën na cee xew waaye réew mi wóoratul laa wax xoolal ma xew ca Grand Yoff ca zone de ba vidéo yi dal di wër réseaux sociaux yi borom scooter lañu fa songu yóbbu scooteram sa waay résisté ngir rawale scooteram ci kër ñu fekk ko fa ma ne waa ji xëccoog ñoom scooter bi benn samba booy bi daal di koy pompe à gaz ñu naan deetawaay beneen ponkal ba ca des yorub jaasi di dóor eskay ma ne fu nit di rëccee la xamul waaye nag jaaraamaa suñu kaaraange gi ndax teg ñu ci ay waxtu yu bari samba booy yooyu ñu daal di leen teg loxo waaw góore waay moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax la ca pont de l'émergence doy na waar ab waaye fa jóge woon ay cant agresseurs yi dal di koy songu topp ko ak ay bouteilles yu ñu tooj cëy mim réew waa ji mu ngi wuyoo ci turu M Sarr waa ji dal bi ko gars yi songee attaque ko foox la def teg ci brique boole kooku yuuxu wàllu naka noonu ci lañu ñu toppee agresseurs yi ba teg kenn ki loxo mu ngi wuyoo ci turu Isaaqa bi ñu koy teg loxo nag ñu ngi ko fekk mu yor ab butéel bu ñu tooj sawaay bi ni ko yóbboo police bu Grand Yoff ci la dal di yoolee ña ca dees nekk jiite woon agression bi moo ngi tudd Tidiane ak beneen xaritam bu tudd Fallou ma ne xoolal ma yi tur yiw rek naka noonu ci la élément police bu Grand Yoff fi def descente ca kër Tidiane daal di koy teg loxo beneen complice bi tudd Fallou nag moom mër la def daw <laughs> ma ne ko doo ci de ak xeere ñu suñu kaaraange gi fi mu ne ñu ngi koy wër Isaaxa ak Tidiane nag ñoom ñëpp defeere nañ leen ma ne réew mi kenn mënatul mucc laa wax moo tax ma ne jàngoro ji dal réew moo gën a graaw corona laa wax la xew ca Thiès romb na doy waar ab marocain daal moo fa tiimale jabaru jàmbur fusil de sas ngir ndaw si jox ko boppam nga ni mbir mi nag nee ñu nii la demee marocain bi dafa invité ndaw si ci biir këram ndaw si daal di ñëw fekk si ko fa ma ko nag ci jigéen ju am jëkkër dafa def yaa tooñ ndaw si bi mu yegsee marocain bi bëgg ko tëddee ndaw si daal di ba tëdd ci naaj bi daal di résister marocain bi nag comme moom kese moo dëkkoon ci biir kër gi ci la génnee fusil de bi ne ndaw si na summeeku jox ko boppam sinon mu faat ko <laughs> waay waay waay xanaa kii daa feebar nag naka noonu ci la femme bi daal di rëccee daw dem nettali ko borom këram jëkkër ji bi mu jotee ci information bi rek li mu def mooy porte plainte ci élément commissariat central bu ñu dal di arrêté marocain bi waaw waaw teg tuuma ci kawam bu ñuy tuddee tentative de viol ak beneen ngombe bu teguwaat ci kanam bu ñu naan non détention d'autorisation de port d'arme enquêteurs yi tamit nangu nañu fusil de sas ba ma ne kii de daa feebar ci kanamu enquêteurs yi ba tey jëkkëru ndaw si nee na ndaw si daal dafa xaw a xelam mooy doy na war waaye nag loolu mu wax indiwul benn document buy firndeel ne ndaw si xelam dafa dem moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax ji nag li mu def ëpp na ndax sa waay daal jabar ji def koo xañ boppam lank ne dootul tëdd ak moom sa waay dal di dem ca kër goro ya dal di koy taal ne mbir mi nag ñu ko doon atte ca chambre criminelle bu Tamba ndeysaan bi waajuru waa ji di ko soutenir ay jooy la ñu génnee tribunal ba ndax daan yi nar a kam waa mu ngi wuyoo ci turu UIW am ñaar fukki at ak juróom di ab baykat teg ci mane ne sa waay daal boo wattuwul dana tëdd fukki atu kaso how how waa ji nag ci kanamu attekaay yi li mu wax nee na munul woon digérer soxna si lànk ne du tëdd ak moom ba noppi dal di dew làqu ji ay kër waay juram nee na nag bi ko ndaw si defee loolu ci la demee kër goro dal di koy taal ma ko nag ëpp na devant la barre de la chambre criminelle na sa waay nee lu tax mu def njombe loolu du lenn lu dul fiirange hmm. ma ne ko nag fiirange day mën na lu ne lu ne fiirange mën na ko waaye nag tey baax na de tey baax na lool lool lool lool nit may la jabar nga fekk ko ci ab këram taal ko yow de xaw ma ko lay may di jabar mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje di ci yeneen xibaaru buzz